asalaamaaleykum dal leen nag jàmm li xew démb ci ndakaaru ginnaaw gi ñu dàqee atte diggante Ousmane Sonko ak Mame Mbaye Niang moo soxal ëttu yéenekaay yi ñu xëyandool bu ci mel ne ëttu yéenekaay bu groupe Sud Communication du Sud Quotidien muy xam xamle ne daal donte sax nag dàq nañu bile atte ci fukki fan ak juróom benn ci weeru mars démb daal ci alxamis bi ndakaaru tàngoon na jër suñu naataangoo bi di ñu nettali li xewoon démb ci ndakaaru di xam le ne ki te parti Pastef les patriotes du Ousmane Sonko du fatte benn yoon li mu dund démb ginnaaw gi mu demee wuyu tribunal grande instance hors classe bu ndakaaru jëmale ci diggam ak Mame Mbaye Niang Sonko ni muy dellu këram daal ci oto waa GIGN la dugg li ko waral mooy ginnaaw gi ñu dàqee bile le atte te muy sàkku téef bâtonnier de loxo des avocats maanaam ki jiite avocat yi ginnaaw gi nga xam ne nag président tribunal bi dafa bañoon ne du dàq bile le atte nag miiru ci gi bi daal ni mu jugee ci tribunal bu ndakaaru ànd ak ay ñoñam nag ay ndaw ñoo ko toppoon waaye nit ñëwee ba ci tunnel sumba jun bi nag ñi fare ci groupement d'intervention de la gendarmerie nationale ñoo taxawal convoi bi di laaj nag ne oto yëpp daal nañ jaar ci biir tunnel bi ci mujjanteel ga ay grenade lacrymogène jib na fa ginnaaw gu militangu Ousmane Sonko yi sandi ay xeer takk der yi ni mbiri tàngee jër la takk der yooyu génne Ousmane Sonko ci otom bi ginnaaw gi ñuy tojee vitre buntu bi mu toogee woon ba pare nag jël ko dugal ko ci benn si seeni oto indi ko ba ci këram file ci cité kër góor gi mu ànd ceeg ki koy layool di maître Ciré Clédor Ly ginnaaw ga nag waa Sud Quotidien di ñu xamal ne waa APR ak waa Pastef yëpp a jàkkaarloo taskatu xibaar yi ku nekk nag yëkkati ay kàddu yu dëgër dëgër ñu door ko ak ñi nga xam ne ñooy ñooñu Ousmane Sonko yi ni fi mu toll nii nag luy jot jot na ginnaaw dee ndax dañoo mënul nangu benn yoon li ñu def démb seen kilifa bii di Ousmane Sonko te dootuñ nangu mu am benn yoon ci jamono jooju it ñi nga xam ne ñoo fare ci APR ñoomit soobu nañu ci xeex bi ci wetu Mame Mbaye Niang muy gis-gisu waa Sud Quotidien ak Le Soleil dañuy des ci li xewoon démb ci ndakaaru ak waa laas ñuy xam ne ne takk deri démb daal ñoom ñoo doon doxal ci mbedd ndakaaru yi APR kontaan loolu la def ci jamono joo xam ne nag Ousmane Sonko bi nga xam ne mbir mi ci moom la dal daal mi nga xam le ne dana yóbbu ay plainte fi mbaxane doonee benn police daal dafa singili Ousmane Sonko looluy gis-gisu tribune ginnaaw gi nga xam ne nag waa daal dañ ñëw génne ko par force ci oto bi nga xam ne ca la ne woon delloo ko ci këram ñuy xam le ne daal Ousmane Sonko ba tey jile ñu ngi koy bàyyi gët gu baax a baax waa tribune ne lii daal dañ ko méngaleeg ak cinéma loolu yit mooy gis-gisu waa Sud Quotidien ne démb daal dafa mel ne ci mbedd Hollywood lañ nekkoon di tourner ab film cinéma ci loolu la ñuy des ba tey ak le quotidien di xamle ne nag ginnaaw gi nga xam ne dañu ko delloo këram par force dugal ko ci oto takk deri nag ki jiite Pastef les patriotes di Ousmane sonkoo ne fi mu toll daal lu ëpp tuuru ndax nag fa ñu jëm ndox amu fa Abdoulaye Sow ci APR ni daal fi mu toll nii ñu sóobu ñoom it bu baax a baax ci combat bi ginnaaw gi muy jugee tribunal bañ delloo si ko si këram nag Ousmane Sonko dafa génnoon ngir dem jàkkaarloog taskatu xibaar yi waaye mujjiwul antu bu ñu sukkandikoo ci waa libération ndax daal dañ kaa sox moom ak ñama àndaloon ay grenade lacrymogène teg ci nag police ñëw fees dell ci buntu këram nekk fa sax nag ba ni guddi xaajee Ousmane sunk di xamle ne jot na nag ñu sóobu bu baax a baax ci xeex bi Mame Mbaye Niang di ko feelu ni Ousmane sunk boobu sax dañ ko war a teg loxo nañu ca Bignona ginnaaw manifester yi nga xam ne it nemmeeku nañu ko fa critique moom li ko soxal mooy kàddu yi nga xam ne mooy jib démb jugee ci waa Pastef ak it waa APR Bassirou Diomaye fay ne ñoom daal wóoluwuñ benn yoon takk der yi Mimi Touré di ko feelu ne li mu gis démb daal ëlëm na ko lool Abdoulaye Sow ak Farba Ngom bokk ñoom it ci APR di xam xamle ne daal du ñu bàyyi benn yoon mbir mi wëy waa 24 heures it mbir mi jaaxal leen lool ñu jox ci kàddu Alioune bu Africa Jom Center ndax ñoom nag bokk ci société civile yi ñu ngi artu bu baax a baax Alioune Tine dafa ruus démb sax ginnaaw li mu gis démb ci dëkk goo xam ne da ngay woote wàllu démocratie Birahim Seck bu Forum Civil di ko rafeelu ne lii kay rafetul dara ci dëkk goo xam ne royukaay la ci l'Afrique mbirub Ousmane Sonko ëlëm na it waa réew mi quotidien jàpp nañu ne daal li muy dundu dafa mel ne dafa nekk ci résidence surveillée maanaam ñu dugal la ci ab bërëb ne doo fa génn benn yoon ci jamono jooju nag waa l'observateur dellu si si l'enquête bi nga xam ne moom la dikk amal ci mbirub Ousmane Sonko ak Mame Mbaye Niang rawatina liggéey bi ci police jot a amal ak it tontu yi nga xam ne moo jibee ci inspection générale des finance bi Ousmane Sonko moo xamle ne kii di Mame Mbaye Niang taq na rip ci mbiru Prodac bi waa IGF di xamle ne nag ñoom sax du woon ab rapport dañ doon saytu kay liggéey bi amoon ci yenn TICAC yi ak waa Green mille waaye du benn yoon ab rapport bu ñu siiwal Sud Quotidien di ñu xamal ne démb nag ci cité kër góor gi ñaari taskatu xibaar yi di bu Sagna ak Boubacar Sow dañ leen teg loxo photographe Sud Quotidien di bat ji moom it jàppoon nañu ko waaye ci mujjanteel ga mujj nañ leen bàyyee liñ leen doon toppee daal mooy dañoo jël ay photo yoo xam ne daal yu garaaw a garaaw la ci jamono jooju it ëttu yéenekaay yi ñu ndool di xam le ne ministère bi ñu dénk wàllu biir réew mi génne na démb ab communiqué di xam le ne élection tabu président suñu réew fase nañ ko amal ci ñaar fukki fan ak juróom ci weeru février ci atum 2024 soleil nag moom li ko soxal tey jii li mooy waxtaane ñu président Macky Sall ci bopp Union africaine bi nga xam ne moo ci nekkoon diirub at mu dellu si ci li gën a fës ci liggéey bi nga xam ne moom le président Macky Sall amal ci bopp Union africaine ginnaaw gi mu jugee ci bopp Union africaine nag président Macky Sall ki ko fay wutu mooy président bu Comore bi di Assali Assoumani tàggat yaram dañu koy dóor ak waa SAD bi waxtaanee gaynde yi nga xam ne nag ñu ngi def ab liggéey gu am solo waaye nag siiwaluñu ko bu baax a baax ku ci mel ni jàlloo Kara Salif Gassama Papis jafra ak Konaté ak gaynde yi la ñu desal rawatina gayndeg bambali bi di Sadio Mané moom nag démb da doon dalal ci Munich jëwriñ bi ñu dénk wàllu tàggat yaram di ba Diattara ginnaaw gaañu gaañu yi nga xam ne moom la amoon Sadio Mané di dalal xel ne fi mu toll nii daal mi ngi sant yàlla bu baax a baax ëttu yéenikaay di waxtaane it wàllu football jëmale ci soxna yi rawatina barrage mondial yi tey jii ci guddi bu une heure du jotee nag gaynde yu jigéen yi danañ jàkkaarloo gaynde yu jigéen yu ay ti ci wàllu lomb sunu lamb jox kàddu gi ki nga xam ne mooy Mamadou Ali Ndiaye di ab entraîneur muy àddu nag ci diggante rëg-rëg ak Sa Thiès ci boobu le daal rëg-rëg moo gën a taxaw te Sa Thiès nag moom li ko manqué mooy combat yim jot a amal daa bëriwul dara lii moo gënoon a fës si ëttu yéenekaay yi ñu xëyee ndool ñu yéen doog jàmm Bonjour. La journée mouvementée d'hier suite au renvoi du procès Ousmane Sonko Mambeignon, tel est le sujet qui intéresse la presse du jour. Affaire Prodac Sonko Mambeignon, un procès, mille péripéties. C'est le titre qui barre la une de Sud Quotidien. Le leader du parti PASTEF a vécu hier jeudi une journée très mouvementée. Convoqué devant la barre du tribunal de grande instance, hors classe Dakar, statuant en matière correctionnelle dans l'affaire de diffamation qui l'oppose à Mambaignan, Ousmane Sonko a regagné son domicile à bord d'un véhicule blindé du groupement d'intervention de la gendarmerie nationale. En effet, après le renvoi de son procès par le tribunal correctionnel sur l'intervention du bâtonnier, face au refus du président du tribunal, du représentant du parquet, la partie civile d'accéder à la demande de renvoi sollicitée par des avocats nouvellement constitués pour sa défense, le maire de Ziguinchor a quitté le tribunal de Dakar avec son convoi escorté par une foule de jeunes. Mais arrivés à hauteur du tunnel de Soumbodjoun, les éléments de ce groupe d'intervention de la gendarmerie nationale ont stoppé le convoi en demandant les véhicules de prendre le tunnel, mais également en tirant des grenades lacrymogènes. Ceci pour disperser les militants qui ont riposté avec des jets de pierre. Et face au refus de la délégation du leader de PASTEF, et toujours d'après Sud Quotidien, ils ont extrait Ousmane Sonko de sa voiture en cassant la vitre de la portière du côté où il était assis avant de l'embarquer dans l'un de leurs véhicules blindés pour le ramener de force chez lui, chez lui, à la cité Kergori en compagnie de son avocat, maître Siré Clédorli. Et d'après le confrère de l'avenue Bourguiba, les deux camps, face aux médias pour vendre leur logique va-t-en guerre. Tout d'abord, les partisans de Sonko sonnent la fin de la récréation et les leaders de l'APR portent le combat de Mame Mbaye Pour le Soleil, l'APR et solidaire de Mame Mbaye Niang qui compte aller jusqu'au bout. Au même moment, le bureau politique de Pastef apporte son soutien à Ousmane Sonko. Restons avec ce procès en diffamation Mame Mbaye Sonko avec l'AS qui renseigne que les forces de l'ordre dictent leurs lois dans les rues de Dakar. L'APR jubile au moment où Ousmane Sonko, le leader de Pastef les Patriotes, gazé et extrait de sa voiture par les forces de l'ordre, annonce des plaintes. Sorti de force de son véhicule, la police s'acharne sur Ousmane Sonko, informe C'est la pression qui continue sur Sonko d'après le confrère qui relate une scène digne d'un film hollywoodien. C'est à cela que les Sénégalais ont assisté hier après le renvoi du procès Ousmane Mambaignon. Avis partagé par Sud Quotidien qui s'exclame comme au cinéma. Sur un champ de gaz. Constat du quotidien Le Quotidien qui donne la parole au leader de PASSEF, les patriotes Ousmane Sonko, qui affirme qu'on s'approche dangereusement de la ligne rouge. Au même moment, Abdoulaye Sow de l'APR de déclarer nous devons être dans des postures de combat. Le sort de Ousmane Sonko intéresse également Libération qui titre ce matin sur La police casse la vitre de sa voiture avant de le déposer chez lui après le renvoi de son procès. Sonko a été embarqué de force par la BIP puis gazé Ousmane Sonko d'affirmer que l'heure est au combat. Je cite, je suis illégalement en résidence surveillée et pour Mambéignan, il doit être tout simplement arrêté. Et selon le maire de Ziguinchor, deux blessés graves ont été enregistrés à Bignonan après ces manifestations. C'est une montée fulgurante des enchères, d'après critique. Bassirou Diomaye Faye, le PASTEF, de déclarer « Nous n'avons pas confiance aux policiers ». Au même moment, Mimi Touré déplore des dérives de notre âge et Benno Bokuyakar est dans une posture de combat. Ousmane Sonko est tout simplement en résidence surveillée, intime conviction de Réumi Quotidien, qui informe que la critique, d'alerte et dépassée, prévient la société civile. Alioune de déclarer qu'il a honte pour le niveau bas dans lequel est tombée la démocratie sénégalaise. Au même moment, Birahim Seck du Forum civil d'affirmer que ces pratiques sont indignes dans une démocratie qui se veut un modèle en Afrique. D'après Sud Quotidien, des journalistes ont été arrêtés devant le domicile de Sonko pour avoir filmé des images dites compromettantes. Il s'agit de Boubacar Sow, mais également du photographe de Sud Quotidien, Sidi Badji. L'observateur revient en détail sur toute l'enquête de la DIC sur cette affaire, notamment la réquisition de la police et les réponses de l'inspection générale des finances sur le rapport, qui désavoue le leader de Il n'existe pas de rapport PRODAC. Il s'agit d'une enquête portant sur le contrat clé en main relatif aux études et aménagements hydro agricole des DAC de CFA, Itato, Kersambakan et Kermomarsar, conclu entre le PRODAC et Green 2000, dont le rapport n'a pas été approuvé, a répondu l'organe de contrôle le 22 décembre 2022. Au même moment, la presse du jour informe que la date de la présidentielle a été retenue. Il s'agit du 25 février 2024, d'après un communiqué émanant du ministère de l'Intérieur. Macky Sall et l'Union africaine février 2022-février 2023, le bilan d'une présidence. C'est le titre qui barre la une du soleil qui relate les temps forts d'un mandat mis à profit pour porter et faire avancer de grands chantiers si chers à l'Afrique. Et d'après le confrère, le président Macky Sall passe le relais au président des Comores, Azali Assoumani. Parlons sport à présent, tout d'abord avec SAD, le quotidien du sport, qui s'intéresse à ces lions en activité, mais loin des projecteurs, notamment Diallo, Kara, Salif, Gassama, Papis, Diafra et Konaté. Restons avec l'équipe nationale, notamment l'enfant de Bambali sa Mané, qui a reçu le ministre des Sports Yankoba Diatara à Munich et de confier à Record, je cite, je me sens très bien. Au même moment, la presse sportive s'intéresse au foot féminin, notamment des barrages du mondial avec Sénégal-Haïti, prévu cette nuit à 1h GMT. En lutte, Moudou Alingaï se mouille, selon Sunulombe. Ce coach et entraîneur physique de déclarer que Regrec part largement favori devant sa caisse. Pour Momodo Alingay, Regrec est complet et sa caisse manque de compétition. C'est tout. À vos journaux et très bonne lecture.